mu mel ni ci saayir nekku fi waaye nag ñu ngi koy dund ak moom saa su ne mel na ni jógu fi ndax jëfam du fi jóg waaw jamono ji hmm, dëgg la faaw nag sunuy xol tooy ndax gisuñu ko ci saayir te tàmmoon na di ko di ko di ko amal ci amalin woo xam ni àddina bépp a ko xam dem nañ ba di ko tudd di tudd màggal gi kon wax dëgg yàlla jëmm la joo xam ne kenn du ko fàtte rawatina nag jëfam jëfam moom mi ngi fi de telle sort que ñun ñu ngi koy dund ak moom di di di xam ni Serigne Saliou moom li mu fi def du fi jóg mukk léegi ci ndekki yi waxoon naa ko li nu war mooy fas yéene jàpp ci liggéey bi rek ñun nag ay taalibe lañu dimbali nañu xiirtal ñu ci bëgg sëriñ Tuubaa nàmptal nañu ci tette nañu ci ba xam nañu li nga xam ni mooy yëllay liggéeyal sëriñ bi ci loolu lañ teg sunu tànk di ci barkel mission bi mooy moom li mu fi nekkee woon rek sëriñ bi ab liggéeyam moo doonoon liggéeyal sëriñ Tuubaa di di di di di jëf màggal gi di jëf gàmmo gi 17 avril. xasiday sëriñ Tuubaa yi ci loolu la nekkoon ndax sëriñ Saaliw moo ko ni woon moo ko joxoon ndigal loolu ne wax sa taalibe yi nanu fonk màggal gi nanu fonk gàmmo ki nañu fonk xasaayati sëriñ Tuubaa moom moo ci boole woon 17 avril 17 avril mooy dajeem bu rëy ba ca taset ak sëriñ Saaliw kon day mel ni loolu duñ ko génn ci la nuy ne ànd na ñun di dem di dik ba melni ni min nañ ko talube bi it xam nañ lolu ci lañu nek duñ ko wacc mission bi du wul lolu fofu mënu tagon fa lañuy fasiyene nek te bañ ko bolé dara tambali ci yem ci waaw maa ngi sante serigne Mountakha bu baakha baakha baax di ñaan mu yag fi te ba ma woyé jox ma ndigal li ma jëfé ko gis yokkute nga xamni mom la ma jural Moi, ndigal li ma ma def ko def nako te te te te te lépp yomb waaw maa ngi koy bu baax di Santo sëriñ Cheikh mi nga xam ne sama di ko di ko di ko Yakar, di di di di fas de eh, de ci ay ndigalam ndax foofooy sunu bunt ci kër sëriñ Saliou mooy sunu bunt ci kër sëriñ Touba kon moom it maa ngi koy maa ngi koy sant ak bi di ndokkale ñëpp nag ndokkale waa cantaakoon yëpp ci bisu màggal gi di ñaan Serigne tubaa yokk seeni xewal xéwal ak fu ab cantaakoon mën a nekk rek maa ngi lay yéene Serigne tubaa defal la ndam defal la tawféex defal la ay xewal defal la ak wér déwén dàqal ñu ren fuuf te ñu waaj màggal gi dès à présent mooy bu suba ñu tàmbalee waajal màggalug déwén te ñaan sëriñ Touba euh, fekke loonu ko